mais yow lu la si wóor duma daw wax bi té sax yow biir yaay tollu ci suñu waxi maam Kocc Barma Dia bu fekké né bëgg nga ré asgor gor ko jox subu gu jot li dundé bu yagé nga soppi ko mala ciow li racisme la cee bok muni avant de parler il faut référendum day sir non c'est la vérité non c'est pas vrai lepp ay katch la du deug ki mo meuna a jaxasee deug Sénégal réewum jamm la bu len daw wax bi amna racisme bu ci am kon ko da nga meuna a lu nu wax nga ni nga ya ko xam ta xamoo te yene wer sen bop de a chaque fois sen ciow ci mbedd mi lay jibee ciow kenn duko régler ci mbedd kon fan lañ wara régler ciow ciow dañ koy wo ci bir keur ñu tok ut solution lu leer mais jël ben masse rek jox ben nit on peut pas accepter on peut pas accepter ça wa père Mansour fay ñata masse nga jox papa Diop si boko waté waxatee ma porter plainte astaghfirullah eh? ah porter plainte gëna gaw non c'est vrai boko waté ma plainte ay waay. mel ni laaj léegi dañ koy tere ci réew mi. mais c'est honte. mais lu tax amu droit laaj la ci papa Diop si. man lu ma bokk rek Diop si la ñuy tudd dañu fàtte ñeneen ñu koy liggéey. père Diop dinañ la tudd tuddati la. ndax boo déggee marché yaay raw sarlee sapin. da ngay mel ni melax. bu dee marché pataas. mu jël lépp. wala marché mango. mu jël lépp. bu ceeb. mu jël lépp. ba pare nan la. parfois. non. <laughs> teg leen ceeb bi ci yoon. li wóor mooy ku ma ci wax loo ma ci wax bu subaa naa la ah ah bon. kon yow tamit da ngay porter waa lii nag kenn xamul lu muy nuru. yooyu yëpp politique la mais xam nga ne politique politique la. waa oustaz loo xam ci ceeb bi ak ni ñu koy doxalee. sunu borom ñu ne ci alxuraan. ku ci lekk benn kilo. bu yomal da nga fay Sénégal yëpp. Sénégal de yaakaar naa oustaz 15 millions d'habitants la. 15 millions kilo ceeb lay fay. man de sama part du ma maye dara bu manqué xaaju gën waa lii ba du ma ko laal. àjjana dina wéet kon de. Ah, ndax amul maye dara. <laughs> tey gis nga potu sàmba lu mu set set set set la si joxee ndox doo ko naan ku ma ko jox barki sëriñ tuuti càggal ma jaale sama bakkan te pourtant moom ak pot beneen bi nga xamante ni mooy potu ndaali ñoo bokk même matière bu ñu ko defee bu ñu bokkee matière nag mais da dul worma ndax lu jëm si biir dafa war a nekk lu ñu wormaal mu ànd ak set mais nan lañuy jëlee ay oto mbalit yoo xamante ni mbalit la doon def di ramasser ay ordure di ci def ceeb boo xamante ni nee nañ dañ ko war a yóbbu ci askan bi nga ni yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine <laughs> ndimbal li wóor na ndimbal ñu ñuy sédalé mo ñuy ray mais xana du ñom ñoo wax nit ñi ku bëgg a mucc ci fièvre bi na nga and ak set li da lañ ñu mëno sant mëna a wala président mom da ko yëgul président Macky Sall ciow li yëpp aussi mom moko tek bopam wa maître sa copain ni mu def ni ko mëne non Macky Sall day xaru mais mba ñi ko joxe ñom dinañ ci lekk rek ñooñu ndimbali concerné wu len mba président Macky dina ci lekk rek président Macky Sall buñ ko joxon ci bop du ko mo moom njabootam ma laaj ko ba xam wa président mba di nga nango barkeelu ci ceeb bi pour xam cafka gi limi sax baxam duma ko def duma ko def. xana ñu deg suñ bop suñ borom rek acca mam mën nga def ñaan. amin.